وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا لسوانا كل من laysa yakunu muminan yaa sa zaman asabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu musliman yaa sa zaman asabta fawran bokkuloo nga ñëw benn jamono ñu déclaré la nga nekk fi beneen jamono ñu naan mu dem waaw ñetti diggante rek la bu ko defee nañu góorgóorlu dellu suñu bopp ci yàlla waaw delloo suñu bopp ci yàlla waaw delloo suñu bopp ci yàlla lépp lu ñu def lu ñu delloo suñu bopp ci yàlla dañuy nax suñu bopp waaw yàlla nag mooy hafistana bi wa bil islami faltafasil kulla anil malami خدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسل يا من أمدا خذ صلاة والسلام أبدا لهم كما أزيت من لم يعبدا إلى النبي قدس صلاة وسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل سل وسلم واستجب سؤالي للمنتهى ما يسر بلا نهاية وقدمتي taqabbala yassir li sayyidil waral maxtaara yaa baaqiyan jaala wal muxtaara naafi'an salli wal tusallim fi aban ala allazi laka yaquudu man habat uktub salaatan li jamiihil anbiyaa ورسل بالتسليم واذكر قطبها نافع سل وتسلم باحترام على النبي والآل وصحبه الكرام صلاة سلع سلع مسمدي على النبي وآله والأمة رد مكايد هدا إلى الإداء يا من بانيا بموجن الإداء أوزن لكل مسلم ومسلمة war na mën a seede mais bu seede bu seede li ko wóor seede li nga xamee ni dëgg la kii dafay tuut tànk nekk nii suñu biir bien que borom kër bu ndaw la mais mu nekk ci nekk bu rafet ñëpp seede loolu ah ñun suñu kon presque dafa am sécurité ndax ndax Mame Balla te loolu c' est très important parce que nit ku nekk sécurité ngay ñaan yàlla sax da nga koy ñaan sécurité bés bu jot donc mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy sécuriser kon boo ko gisee nekk xale boo xamee ne dafa yaatu ci ñëpp ubbeeku yi day foog su ma su doom bu góor day mel ni ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ma doom bu góor yan saa yi mu ñëw euh, euh, fekk soxnaam mu ne ko dama lay jëndal boisson tey ak banana ak donc dëkkandoo bu rafet la ah loolu mën nañ ko seede ci seede na tamit ah mosuñoo dégg gum wala ñu gis fu mu loree ci loxoom wala ci ci làmmiñam gisaguñ donc loolu lu ñu war a mën a seede la ci moom ah. wax leen na daal yéen ñi fi ñëw na ngeen xam ne xale bu baax lañu dëggal ñu buñ ci ci sànniwul kàddu yooyu rek du rafet yooyu daal mën nañ ko ci sànni en attendant ah ngeen xam ne xale bu baax lañu dëggal ah bu am njariñ asalaamaaleykum wa rahmatulah. mu nekk xale bu gore bu baax bu gorewul woon kenn du bàyyi sa yitte di ñëw fii tey àjjuma la ku ne am na yenn yitte yoo doxi mun ma koy ñaanal moom yàlla na gudd fan. doom ji yàlla na gudd fan ba fay ko ba fay ko njëriñam xam naa jabaram xam naa ko bu baax a baax a baax a baax mambal la nekk xale bu baax a baax a baax su bonoon tey kenn du fi ñëw yàlla na ko yàlla defal jaam yéen tam yéen tam yàlla nañ fi yàlla nañu yàlla bàyyi ngeen di tudd tudd ay tudd yu bëri bëri wasalaam mu nekk écrit boo bu mu fi toxasee léegi war naa ma un an. mais yàlla ma la yàlla dëgg dëgg mu de yàlla. yàlla bu leer balaa ñu ma yàlla ak teggin ak fula ak fayda. du ma doon mukk ma pexe. te bu ko boo ko def mën nañu ko mën nañu ko bokk génération. du ma ko bokk mais du ma doon mukk ci néew ma pexe su ko def. waaw tey amoon na yeneen yi ko war a def mais dama

mun a jabaram te mun koo fa koo defale defal te mun koo lim. waaw dëgg la moom kër gi yëpp. ñu ne waa kër gi yëpp daal ñu ngi lay gërëm di koy sant. mu ne ak magami góor yi ñëpp ñu ngi lay gërëm di la sant. ya ak sa soxna ñëpp ñu ngi koy gërëm di ko sant. ndax daa yaa ko def na ko def ñu ñu wax ko. rafet na dëkk bu rafet. waaw yàlla yàlla def jàmm jërëjëf waay yéen yéen yéex ngeen a dëkk

مع الآديس سيها زابرو أتيتني الجميع دون السلبي ولتقول صلوات التلب لأوسن الذي أريد وأنفي بي الوراء يا مهنيا أنمد فهم ما تقصد الدر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده زوجت قام وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد لسالهين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء بتلي باللفا نفيت كل من خلاني فاراب لما يسوءه دواما ذاكرب يا الله يا رحمن يا بصير خبير يا ريم يا يا نذير نجيت من بيتعلق معك من السياتين فسكري أزمان وجهت سكري إلى الرحمن المالك الريم ذي الأزمان كرمني في موده وبلدي مكرم بالأمن صفى قلدي أكرمني رحمن إكراما كفى كل يدي در وفيدي وكفى ناجيت ربيا bi sëriñ Ramadan sëriñ lamaani wal muna wal fayyadaan amitto hamdan yasuuqu sarmadan li xayrinaam ibliisa sawxan ak madam xulóobun لقي دري والمنالي وجان خلاب جملة الذين أفلوا ليتوجد وربي مسلم إلى الذين ظلموني قبل borom yàlla dund ma ko ñaan lu soxla ñëpp fekk kenn maanaam bañ a manqué am ak bu ñu ko bàyyi foofu rek nag. kii nii. Bamba bi wëlis. dajaleel lii. macha allah loolu mooy borom Dakar. Dakar. Bakar de. Cap-Vert. boo nee Dakar loo xam Cap-Vert. boo nee Dakar loo xam Cap-Vert. waaw. yàlla na tuyul borom. amiin yàlla na dund ba a manqué. waaw ziar lu ziar bi. am te ko. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg wax na المرسل ku lakk buy tudd dëkk. toujours bu tàgg bu naaw jaaxle bokkam. yaa ko doon Ndakaaru. Sénégal wax ko. ak Cap Vert. Abass Ndiaye moom mii la xam wax na ko sama yaay léegi wax na ko sama yaay léegi wax na ko sama yaay léegi. waaw waaw. waaw jërëjëf jërëjëf Abass jërëjëf jërëjëf. waaw. moom si nga. ku la tudd turub dëkk. amiin waaw loolu loolu dëgg la. waaw loolu dëgg la. naa ko léegi. wallaay wallaay. buur kontaan nañ ci yow de. allo gars yi am nañu ko de. dëgg la. mi taxaw. ah léeg-léeg nga am foofu. waaye dama si yow. ñu ne yàkkam jiw kay docteur bu fi ci ñaari weer. ah. tàngaloo doog bu tàngari jëlee kër gi. sa fi yàpp neex ak neex ak ceeb lañ ko tudd. ndeysaan buur génn moom. saf yàpp ne xeb ceeb lañ ko tuddee. maa ngi koy nga koy ñëw maa xoolal. la moo tardé cet événement. Eh, lii yàlla na ko def ci eh, eh, bu. jaajëf Pape Malade di takk jabar. waaw nawet yàlla nga ko defee nii. kañ bañ a manqué. ñëpp fekkee yàlla mën na ko ne aj nañ ko ñaan. waaye nag jég jàmm. tàngaloo ndox bu tàng ci lay kër gi. waaw waaw. Euh, maa ngi sa borom kër gi ci jamonoy Mor Fadam. maa ngi moom ma ko gàmmu yaa ma koy tëggal. maa ngi seen mbàkk mbay. am ku lekk pour tulub dëkk. ci yar bi ci tegg ji ci fula ji fedd ji. ak ci fit bi ñun suñu kaala nga dëkk ñun fii kenn ñu ñuy agressé ndax yàlla am jëmm ji waaw kenn ñoo fay duggu ñàkk duñu agressé ndax am naa un an léegi kon la jëmm ji loolu dëgg la macha allah yal yàlla xam dolli yàlla yàlla nga dund bay dégg roi des arènes barke Mohamed yàlla mën na ko ci dañ koy ñaan rek ñi koy am dañ la ko gën la laa gën boo ne te sa yaay gërëm la de ci amee ba gërëm waajur mooy barke diwlin boo teg ci mbartal su poussé mu dem mu pousse mu dem ana jeg jàmm. am ci ko. ñaw tàngoor ndox bu tàng di jëli kër ko nuyu. Euh, maa ngi séminaire ak ministre mais dama mujj dagg pour ñëw teew ci loolu nag daf ma tuuti. moom la Abass looy doon léegi. am na am na kóllëre. ndax ñun ñi nekk ci politique dañuy am loo xam dañ koy gis dañuy gis loo xam dañ di ànd ak yow yow suba teel nit fukk ko waaye moom ba mu ne yow la ba tey jii mosul soppi te loolu mën ma ko ñàkk seede ñaan yàlla teel ñu kóllëre gi te yéen ngeen toom yàlla batula سبحان وهو الكريم هو الأمير وكل من لم يوني فهو الجميل تسليم من لي لا يوجه الدرر على الذي بي كفاني القرر جزاء من جل من مثال لخادم قاب عن الأمثال الحمد لله انتهائي هل ابن عبد الله عبد الله زلباي برات المختار لي يتفاء إلى من بنكال يوفى للمصطفى وجهت ما قد سلفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزاد ولإلهي كاس سيدا ملكت ربي مالكي كليتي هال له كاملي والنيدين رددت بالله وبالرسول من قال فالحق ونلت زولي برأني إله من سلك ومن كل نفاق وسعادات دم براني من غيب نفسي بنبي صلى عليه بسلام متنب هو الذي لم أر خيره ولا أراه في شيء عدا هو ولا محمد صلى عليه بالسلام وسيلتي له